lu ñaaw moo xew ca eh, njàngalekaay bi nekk foofu ca diwaanu Tëngéej te ñu tuddee ko IA bu Rufisque ay ndongo yi nga xamante ni ñoom ñoo war a dem ci examen bac eh, ñoom dañ leen doon defal li ñu tuddee lii di bac blanc ci bac blanc boobule li gën a yéeme loo xamante ni ñu ngi koy ŋawte ŋawtee di ko waxtaanee muy wàllu ngóor jigéen dellu si na waat de fi mu nekk nii daal eh, fépp la koy waxee te test bi fu ne ñu ngi koy def maanaam dañ doon peese ñii di ndongo yi nga xam ñoom ñooy def bac ñoom fan la ñu yem. ci wàllu góor jigéen test boobu noonu dañ leen laaj ci biir kayit googu nga xam ni moom mooy bac blanc bi ñu bindee ko ci anglais yéen lan mooy seen xalaat ci wàllum góor jigéen ànd ngeen ci wala àndu leen ci boo leen ci àndeek wala àndu leen ci fan ngeen ko teg te kayit gii ngeen liir ñu ciy wax wàllu góor jigéen te di leen ko laaj bi ngeen ko liiree lan la seen xel yéeg ak seen xol mu mel ni ki daal lii nga xamante ni moom mooy bag blanc boobu ñu jox leen muy euh, épreuve boobule daa mel ni ki dañuy jéem a càmbar xale yi maanaam peese seen xel ñoom fan lañ toll ci wàllu góor jigéen bu ñu xoolee ci réew mi ñu ci ëpp ci ay ndaw lañu rawatina ñii di jàng kon test boobu jaarale nañ ko fii ci wàllu njàngale njàng meeg njàngale bi ay fan yi ñu génn doon nañ wax naan am na lu ñuy nas ngir dugal ci wàllu njàngale mbirum góor jigéen. ci daara yi yéeme na loolu ca Sénégal la ñuy des ni ba tey bi ñu jox bi bile xibaar mu mel ni kii soxna sii euh, moom la mu bëgg rek mooy euh, fësal ay photo yoo xamante ni photo neen la maanaam daal ay awra yuy génn maanaam vidéo tamit la bëgg a fësal euh, mi ngi chantage ki nga xam moom la ñuy tuddee lamin Mbuub am juróom benn fukki at ak benn nee na ko daal boo moytuwul dinaa génne say vidéo si réseau sociaux yi xam naa dafa ne dung loolu jaaxal loolu Lamine Mbuub mu dem ci njabootam waa këram wax leen ko daal leen yi avertir ne leen daal am na ku may chantage ku may xoqatal samay awra la nar a génne bu ñu fa jógee sans limite sans limite euh, ñëw na ci mbirum Ousmane Sonko ak aji saar daa mel ni ki daal ñi nga xam moom mooy mbootaay association des kinésithérapeutes bi nga xam dañ demoon ci yoon ne daal euh, lii di salon boobu nga xam ne fa la Adji Sarr doon maasé Ousmane Sonko teguwul ci yoon te lu jëm ci wàllu massage ñii di kinésithérapeute ñoo ko war a def ñoom ñuy laajte ñoom est-ce que am nañ autorisation ak fan lañ ko yëgee fan lañ ko jëlee daa mel ni ki daal ñoom gannaaw li ni mel dafa mel ni ki dañu delto ginnaaw ne nekkatuñu li nga xam moom mooy partie civile ci bile coow ah, bi euh, ubalee Sénégal Adji Sarr Ousmane Sonko ndaxte daal ñoom la ñu gis si wàllub euh, lii di plainte boobule dañuy toppee usmaan Sonko ci wàllu wàllub viol kon daal li nga xam ne moom mooy wàllu autorisation ci wàllu salon beeg nañ ko tegee ak li nga xam moom mooy euh, professionnel yu kinésithérapeute ñoo war a def massage ñoom lépp ñu ko doon coow daa mel ni ki daal gisuñu ko ci wàllub yoon moo tax ñoom ñu daal di deltu ginnaaw bis bu lii fësee ñu daal di woo ki moom salon boobu laaj ko ci wàllu autorisation ak yeneen ak yeneen su boobaa ñoom danañ teew waaye bii moom seen ngañ newu ci aji Sarr ak Ousmane Sonko nañu ko réglé.